ci wér ko ñaawlu aussi kaddu mag yu fay. ah oui da doon politique. ndax kaddu politique la. ah oui te politique. si guy Masaalikul Jinaan sëñ Muntaxa yoonu Serigne Muntaxa nekk Serigne Muntaxa mooy Serigne Touba. Ah, Macky Sall bu fekkente ni dafa bëgg def campagne na dem defi campagne. ah oui dugg si terrain na waaye ñun tabax nañ suñ jumaa ma jox sama ñaar dërëm. Ah ak sama ciment ku ne def ci la. ba jumaa ji taxaw te dërëm mag Sall demu si. Ah président Abdoulaye Wade moo joxe suuf si. kon ñun bu Macky Sall ñëwee di seet si jumaa ji Ah. yéenewul dara lu dul muri naa naa tabaxu marbu ah. pour ñu dee kooku moom yéeneem la yàlla na këpp si kawam ah. waaye nag Macky Sall moom nga xam ni Macky yu fay amul sañ-sañ naan sant sëñ Touba di na fal et puis na mën eh, ta lu ma gêné ci wax ji sax man mooy lu ñu koy falaat moom amatul lu ñu koy falaat mm-hmm. l'élection législative yi bokku ci mm-hmm. élection présidentielle 2024 constitution bi nee na mën ta bokk kon lu ñu koy falaat bu ñu yee fitna ci réew mi pareegul nee non dama ne loolu ay waxam la. ma daane mooy ma daane mooy. moom bu taxawee. sëriñ Bassirou Mbacke Abdou Khadre yor kaddu yoonu Mouride. yoonam nekku fa ba muy wax si Macky Sall ak sëriñ bi. Ah, sëriñ Touba la ñuy sant di ko gërëm waaye sant ñu Macky Sall na def lu ñu dara lu ñu am sëriñ Touba ñu ko defal maa la wax ndax bu doon sëriñ Touba du ñu am jumaa ji yàlla xam na ko lam si xam nag ci extorsion yo ci extorsion yi moo xam moo ko xam bi mu jëlee milliard jébal ko sëriñ bi sëriñ bi xam na fi milliard jóge delloo na ko milliard ñun suñ tubaab lañ gëm